faj aajo maanaam nit nan lay def ba aajo mu faju la ci gën a gaaw mooy sàmmoonteeg teggiin téere bi day jàngale teggiin yi nga xam ne ab jullit rawante na ab taalibe moom la war a jéema a moom nag deful ay buntu ak i dog li ngay njëkk a njëkk a gis daal mooy tàmbalee bismillahi rahmaani rahim teg ci julli ci yonante bi teg ci ay wax yu am am njariñ yoo xam ne te koy tuddi ay xikam te yi ci ëpp sëñ bi waxu ko da ko toxal rekk indi tàmbalee ko gannaaw wax yooyu nag mu bindaat beneen bismillahi rahmaani rahim door tàmbali way téere bi naka mu xamle boppam sant yàlla julli ci bi daldi wax téere bi ak li tax mu taalif ko ak li téere bi ëmb soññaate bu baax a baax itam ci ñu fonk ko xam ko te di ko jéem a jëfe day def nag bu indee ay way dellu saraa ko leeral lam jublu woon ca wayya bismillah mi ngi tàmbalee ci bismillahi ci tudd turu yàlla lay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xeewle xeewal yu dijj yi arrahim yàlla ki aji xeewle xeewal yu sew yi dafa tàmbalee turu yàlla addis ba nee na woon seen mbir yi am solo dee luñ ko tàmbalee tur yàlla ndax luñ ko tàmbalee wut du am barke mbaa barke ba day manqué arrahman arrahim sëñ bi da koy firee moom arrahman yàlla mi yërëm ñépp ci àdduna nga xam ne yërmaande yi àdduna ji moom ñay weddee kay mooy sax ca lañu arrahim nag di yàlla mi yërëm ci àllaaxira ña gëmoon rekk wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla xalaa sayidinaa ci sunu sang muhammadin muhammad wa xalaa aalihi ak ca ñoñam wa saxbihi ak ay saxaabaam wasallama temu dool leen wóolu mbaa tem dool leen mucc tasliman dolli wóolu mbaa nga ne ak musal dafa bind bisimillahi rahmaani rahim teg ci julli ci bi ñaanal ko yàlla dolli ko teraangaak mucc ak jàmm moom ak mbokkam yi ko gëmoon ak yu saxaabaam xasbuna doy nanu allahu yàlla wa ni amate baax na wala wa ni amate amul moroom al wakiilu yàlla mi nu wakiirlu xasbuna allahu wa ni amal wakilu mooy nun day doyloo nanu yàlla te yàlla doy sëkk ku yëkk yàlla say mbir rek fekk nga ka gën a doy nga dénk ko say mbir innamal aamaalu naka jëf ya bin niyaati nekk nañ ca yéene ya wa innama li kulli mri'in naka ñeel na séppustam maanaam ñeel na képp nit rekk maa la nga xam ne nawaa yéene na ko innamal amalu binniyaati ab addis moo ca tàmbalee dañuy wax ne bokk na ci addis yi gën a ëmb léppi diine te mooy jëf ju ne yonent bi ne mi ngi takku ci yéene su yéene ja sellee lu jëf ja tuuti tuuti daldi rëy lool fa yàlla te mën naam sax mu tuuti fi nit ñi waaye nag bu yéene ji sellut jëf ji lu mu rëy rëy fi bëti nit ñi du tollu nenn fa yàlla te mu ne kenn ku ne nag la mu yéene rek la am ndax la mu yéene rek lañ koy fay wa fil xikam yi nekk na ci xekkam yi maanaam nekk na ci wax yi am njariñ man talaba ku sàkku al amra mbir ma wajada te mu farlu wajada mu am ko wa man xaraa ku fëgg albaaba bunt ba wala ja te mu nóoru muy sax ca fëgg ga wala ja mu tàbbi ña xam xam gu jariñ wax nañu ne kuy wut mbir te farlu ca def ca kem sa kàttan yàlla mën naa def nga am ko ñu ne it ku taxaw ca bunt ba di fëgg rek daa deltu gannaaw yàlla mën na am bunt ba ubbiku nga dugg ca biir loolu li mu tekki mooy jaam bi daa war a xam la mu war a bëgg mu bëgg ko ngir yàlla di ko wut nag te mu jaral ko lu ne su ko defee rek yàlla mën na ko ko may wa fiiha nekk na ca xikam ya maanaam ci wax ya am njariñ man am saka ku jàpp mbaa nga ne ku bàyyi xanil fudooli walis caaxaan xodda kon limaaleef ko min arbaabil xuqooli ca waroom xel ya wax nañ ne ku sa bopp ci caaxaan maanaam fexe ba doo dugg mukk ci dara luy caaxaan ku mel noonu buñ dee wàññi ña yeewu faw ñu boole ko ca koo xam ni moom bu jege daray caaxaan buñ dee wàññi ña yeewu ñamati xel faw ñu wàññiwaale ko ca wa fiiha nekk na ci xikam ya man laa yusqitu koo xam ne du merloo nafsahu bakkanam laa yurdi du gërëmloo rabbahu boroomam wax nañ ci wax yi am njariñ ne koo xam ne daal lu bakkanam bëgg rekk mu fekk ko ca du naqaral mukk bakkanam du am mukk ngërëmul yàlla ndax bakkan moom lu bon mbaa lu amul njariñ rekk lay diggal boroom kon nag koo xam ne lu mu bëgg rek nga fekk ko ca doo ko naqaral mukk doo am mukk ngërëmul yàlla wa fiiha nekk na ci wax yi am njariñ man fa la kuy def macha la ko soob laq ya mu taseeg maasa lu ko naqari wax nañ ca wax yi am njariñ ne kuy def la ko neex rek du seet ba xam lu yelloo def la am déet lu ko neex rek lay def faaw muy taseeg lu ko naqari teeg ëllëg te du ca mën dara wa fiiha nekk na ci xikam ya man laa sama ku taqoo mujahadata nafsihi jihaat ak bakkanam faasa kon mu texe xinda xolooli ramsihi fa wàccu bàmmeelam mu ne wax nañ ci wax yi am njariñ ne ku sax ci bëreeg bakkanam dañ koo topp ci la ko neex te teg ko ci lay dëgg dana sonn sax te dana metti waaye bu wàccee ci bàmmeel rek fa lay noppaloo faw du gisati ab coona wa fiiha nekk na ci xikam ya man taabaxa ku topp ar rasula yonante bi naa la mu am xayra suulin gën ji pajug aajo wax nañ ci wax yi am njariñ ne ku topp yonante bi faw nga am ngën ji pajug aajo ndax yàlla moo ne man yutahir rasula faqad ataaxallah ku topp yonante bi topp nga ma kon te ku topp yàlla topp yonante bi faaw mu am ngën ji paju aajo wa qaala wax na jaamihu haadihil xikami aji dajale yi lay xikam baytan bayit waaxidan wu di wenn fii haadal maanaa ci mili maanaa waxoo moom nag mooy wa kullu man képp koo xam ne saama woor na xanir rada ili walis xeeti caay-caay yi fa innahu naka kookee yuftiru dana doge bil fadaili ci ngëneel ya mu ne man bi nga xam ne maa doon boole wax yu am njariñ yii tàmbalee ko saa téere bi am na bayit woo xam ne maa ko wax te mën naa dugg ci wax yu am njariñ yii mooy dama ne woon ku sori xeeti caay-caay yi yàlla dal koy takkaayale xeeti ngëneel yi mooy faawu jaam bi day summiku ba set sangu ba set sori lépp loo xam ne lu yàlla taamuwut la yàlla doo ko takkaayale xeeti ngëneel yeeg daraja ya wala hu ñeel na ko ay dan ba tey ziida yàlla na dolleef ko fayu dan ak bëbb wala baawaanuk may baytum bayit aaxaru waneen fi haadal maana ci mili maana yanzimu dana way maana qawli cheikh yi maanaam waxi sëriñam ba radiya yàlla na doollee gërëm allahu yàlla taxalaa kawe na an walis ko waxoo moom moo di dawlatul baatili nguurug neen saaxatun wenn waxtu la wa dawlatul xaqi nguurug dëgg ila saaxati jëm na bis penc bi ko sëñ bi waaye nag mu ne alxaqu thaabitun wa in xalaa fa zaaxiqun wa saafilu alxaqu dëgg ga taabitun aji sax wa amal baatilu ndaal neen muy caaxaan wa in xalaa ak doonte kawe na maanaam jëm na kaw fa zaaxiqun aji naax saay lay doon wa saafilun te aji suufee sëñ bi dane ba tey am na weneen bayit woo xam ne maa ko wax te mën naa dugg ci biir wax yu am njariñ yi waaye nag cosaanal wax ja moom bàyyikowul ci man dafa bàyyikoo ci waxi sama sëriñ sëriñam boobu nag dafa mel ne Abdul Qadir al Jilaani lay wax ndax moom daa fekk ay waajuram nekk ci yoonu Qadir nee nañu sax teel naa fab lool wérdu Qadir mu ne sëriñam boobu daa waxoon ne nguurub caaxaan du yàgg waxtu rekk lay doon nguurub dëgg nag moom amut fu muy yem ba bis penc sëñ bi way ko ne dëgg day sax rekk faaw faw caaxaan nag moom ak lu mu yëkkatiku yëkkatiku ba ñëpp di ko séen it day jekki-jekki naax saay rekk daanu fi suuf maanaam caaxaan daal moom lu mu yëkkatiku yëkkatiku ci suuf rekk lay mujj du amuk mucc mu dellu bindaat nag bismillahi rahmaani tàmbali way yi ne qaala wax na ibnu cheikhihi doomi sëriñam allazi ka nga xam ne laa yaxmadu du sant fi nafsihi ci boppam si wasmihi lu may aw turam ñu koy wax ndare aw turam ahmadu te mooy ahmadu mi ngi door a xamle boppam ne moom waajuram mooy sëriñam kon doomi sëriñam mooy taalif waajuram nag moo ko jàngal xam-xamu diine teete ko ci yoonu xaadir wu nga xam ne ca la nekkoon jàpp ne moom mi taalif nag gisul ci boppam dara loo xam ne lu ko neex la lu muy darajawoo la lu may rekk turam wi muy ahmadu ji tudde gi ñu ko tudde yonante bi rek moom rek la gis ci boppam loo xam ne lu jara sant la lu jara darajawoo la waaye gisul ci boppam dara dara loo xam ne lu mat a geesu la lu mat a jàpp ne am na maanaa lu may rek tur gi ñu ko tuddee yonante bi sallallahu alayhi wa alihi moom nag yàlla mi naroon muy ku dàmbe lépp lépp da koo xiirtaloon ci képp kum gis rek rafet njort ci yow rek def lëb sëriñ ñaan la wird mbaa ñaan la nga yeesal ko wird woo xam ne fekkan na mu yor ko mujj nag nee na ma seetlu ne bari na ñu ma yaakaaroon ne àgg nañ ci àgguwaay ba ndekki àgguñu ca àgguwaay ba mu ngéejoo woon nag yàlla jox ko wird joxin woo xam ne day bàyyi ko ci koo xam ne àgg na ci àgguwaay ba ci coobare yàlla nag yoroon na gannaaw wirdu xaadir wirdu tiijaan ak wirdu saadili mujj nag yàlla defal ko alquran rekk muy wirdam defal ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek mu di sëriñam bi dox digganteem ak boroomam ba sax naari Cheikh Sidiye yi dañ ko daan laaj na ko waaw lu tax ngay tuddoo waa kër Cheikh yi ni ñooy say sëriñ mu ne leen loola ay jamono la woon waaye nag bi yonante bi wëlbatikoo di ma tërbiyaal boppam dafa araam ci man may geesu keneen ku bokk teg moom ndax loolu sore naag teggiin moo tax nag yonent bi rekk mooy sama sëriñ teewul nag may sàmm xorma ja ci sama digganteeg mboolem nit yàlla yi mu ne nag yàlla da koo baaxe ba mu nekkee ca géej ga yàlla yebal jibril mu fàtteloo ko lépp lu ko nit ma sa jox jibril rekkee ko ci moom maanaam fàtteloo ko ko ba mel ne xamatul dara dara ci lu ko nit ma sa jox yàlla door yebal nag jibril mu jaar ci yonante bi yonante bi joxaat ko yetti wirdu yooyu yëpp wirdu xaadir ak wirdu tiijaan ak wirdu zaazil jox ko it ndigalul mu di leen joxe moo tax sëñ bi wird yépp la daa joxe jox ko jibril mu jaar ci yonante bi mu jox ko ko nga xam ne kon lam doon géejoo ci xame wird yooyu ci ñi amub àgguwaay mel na ne amee na ko foo xam ne mooy àgguwaay bu féete kaw beneen àgguwaay mënu koo féete kaw bi mu ñibbisee nag ba nekk gànnaar ca sarsaara ci bisu àjjuma ci weeru koor ak yonante bi feeñu ci njéeméer du ay nelaw du dara sako nag wirdam wi nga xam ne mooy al wirdu al maxuudu minallaahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi gannaaw bi ko yàlla joxe wirdu boppam nag la wax ne ku mën a boole wirdam wi ak weneen kon fa huwa nuurun xala nuur kon loolu leer la ci kaw leer ku mënta boole wirdam wi ak weneen nag nga yem ci wirdam wii alhamdu xeeti cant yépp lillaahi aji yey la ñeel yàlla maanaam yàllaa ko yeyoo allazi yàlla mi nga xam ne xadd satara suturaal na mahaa ibi samay ayub wakaana te mu nekk lii ñeel ma wa nasara te mu dimbali ma subhanahu soreelal naa ko lépp lu yellul ci moom rabban mbir mu muy buur kariman bu di aji tedd jaada bopp tabe na lee ñeel ma bi maa ci loo xam ne xadd xaada wommate na li sukri yi jëm ci ak cantam daa tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne nee na moo mu baaxe suturaalal ma samay sikk nekkal ma dimbali ma yàlla sunu boroom dama nekkal di ma dimbali di ma suturaalal samay sikk fekk na ñoom nag la ñu tuddi sikk bu doon ci keneen ay baax baax ak ay ngëneel ak ci daraja lay doon li ñuy wax naa xasanaatul abraari sayyi'aatul muqarrabiin mu ngi sant yàlla nee muy buur bu tedd boo xam ne dama maye may ba may ma loo xam ne mënuma ko ci ñàkk sant wax wa moom allazi mooy ka nga xam ne jaala def na xusnal adabi rafet teggiin yux fii muy nëbbu jahalatan réer ak ñàkk xam wa qubha nasabin ak bon askan borom bi muy sant ka tagg nee na mooy ki nga xam ne dafa def teggin yu mat yu rafet ku ko amee rekk boo xamut it ñu defe ne yaa fi ëpp xam-xam boo bokkul ci askan wu baax ñu defe ne ci askan wu baax a baax nga bokk kon rafeti teggin day nëbbu ak xamadi ak bokk ci askan wu yamaay wa qassa te mu jagleel ahlal ilmi ñooñ xam-xam wal aadaabi ak i teggiin bil ci ak tuufu bis sawaabi ci ak jub wa tawaabi akub yool yàlla mi dogal ne moo dogal ku boole xam-xam bu wér ak i teggiin texe nga ndax yaa ngi ci jub te bu ëllëgee bu la yàlla fayee tuyaaba ja rek sa xol dana gën a sedd tu masalaatu topp dolli teraanga bi salaamin ànd ak dolli wóolu raaxin guy aji yéeg maanaam guy aji kawe alal lësi yàlla nekk ca ka xam ne irtaqaa yéegoon na alburaax ci kaw alburaax sayidina mooy sunu sang addaax yi ka doon aji woote ilal xallaaqi jëm ci bindaakon bi bindaakon mooy yàlla mi sàkk lépp bi ahsanil aadaabi ci gën jaarafeti teggiin fil axlaaqi ci jikko ya muhammadin moo di muhammad wa alihi ak ñooñam as subbaaqi ña di way raw wa saxbihi ak ay saxaabaam alxaawina ña di way làq fadlal baaqi yi lël yàlla mi aji des maanaam yàlla mi dul jeex mukk gannaaw sant yàlla da cee teg julli ci yonante bi yonante bi nga xam ne nee na moom la yàlla mayoon mu yéeg ci alburaaq wuy ji boroomam ci asamaan boroomam déyaaleeg moom mu door a dellu yàlla yebal ko muy woo mbindeef yi jëmee ci seen boroom te nam doon wootee lépp di teggin ya gën a rafet ak jikko ya gën a tedd jikko ya gën a tedd ak teggin ya gën a rafet ca la doon wootee jëme ci yàlla sang boobu yenn ko yàlla dolli teraanga ak jàmm dolli ko mboolem mbokkam yu baax ya ak saxaabaam ya baax na baax ba yàlla jagleel leen ngëneelam fa asbatoo te ñu saxaloon an nusha la biire bilaa shiqaaxin ci lu mooy jiwoo ka wuuteek xëccoo ngir malakoo moomoon nañu an nu foosa bakkan ya bistir xaaxin ànd akuk jaamuloo maanaam def seeni bakkan jaam fa at la foo te ñu sànkoon al amwaal alal ya bil infaaqi ca dundle ga bilaari a innaasi ci lu ngistal nit ñi wan nifaaxi akuk naafiq saxaaba yooyu day dañoo saxoon ci di laabiire ñi gëm yàlla ñépp doon benn amuñu woon génn xëccoo ci seen biir te la leen mayoon loola mooy moom gañ moomoon seeni bakkan ba def seeni bakkan ay jaam bakkan ku ko moom rek sa lépp daldi defaru ñoom dañoo moomoon seeni bakkan ba def seeni bakkan ay jaam moo tax ñu man lañu ñu mënoon moo tax daanañu fab seeni alal di ko def ci yoonu yàlla te ànd ci ak sellal yàlla dong tax ngistal nit ñi taxutoon ak naafiq taxutoon te am na ñu yàlla na toowoon ñi daan joxe seeni alal ci loo xam ne ngistal dong la wala ak naafiq ndax booba naafiq daa yaatu woon ci jamono yonante bi ndax ndegam booba ku nanguwut a gëm dugg ci lislaam ñu woo ko woo mu bañ dañuy xeex ak moom te buñ ko jekkoo faat bakkanam fab alalam boole ci loolu nag moo tax naafiq bari woon na di wax ne man gëm naa te fekk na gëm ga nekkul ca biir loolu lépp nag saxaaba yi moom yàlla leen ca musaloon wa wasiqoo te ñu dëgërlu woon bi naafi'i ci yàlla mi aji jariñe ar rasaaqi kadib wërsëgalekat tawakkulan ngir wakkirulu àllihi ci moom fil arsaaqi ca wërsëg ya dañoo doyloo woon yàlla xam ne yàlla mooy wërsëgale luñ am rek delloo ko ci yàlla yàlla sotti leen lu ko ëpp ndax su borom ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raasiqiin lu waay am te attan ko joxe ngir yàlla rek fu mu geesoo gis ku ko attana jox lu toll noonu mbaa ko ëpp lu ko gàcceel ngir yàlla kaanu nekkoon nañu dawin tilaaqin di waroomu boy booy mooy dem ak a départ ilal uxra jëm alaxira id waajahoo ba ñu jàkkaarloog ab darrata wujj wa bit ci pase ne ñoom saxaaba yi dañoo xamoon ne àdduna wujju alaxira te yaari wujj neexuñoo boole ñu daldi jàkkaarloog àdduna fase ko fase mu dog dëgmal nag alaaxira ma nga xam ne moo am njariñ ndax moo dul jeex lam yatrukoo mësuñoo bàyyi li doorin ngir am tiit aw imlaaxin wala ngir ñàkk am ran ndigal minal mudabbiri mu bàyyikoo ci aji doxal mbir ya alxallaaxi kadi ab bindaakoon bal li fi nekk tabatoo saxoon nañu fil amri ca ndigal la bil ashwaaxi ànd ak ay cofeel lam yulhihim mësuleen a soxlaal maanaam mësuleen a gàllankoor anhu walis ndigal la xinal aswaaqi koomum marché ya mu ne ñoom day ndigalul yàlla dañ koo tegoon ca kaw gën koo fonk ci leneen lu mën di doon nga xam ne tiit du leen tax a saalit ba bàyyi ndigal ñàkk ak xat-xat du leen taxa bàyyi ndigal mukk dañu daan sax ca ndigal la ànd ak sopp ndigal la nga xam ne lu marché bi neex neex du tax ñu fàtte ndigal bu ñu wootee dem ci xare ba mbaa ñu wootee ci jàkk ja rek ñu daal bàyyi marché baag lépp li àdduna dëgmal ndigal la door a dellu ca marché baag koom-koomi àdduna yi waqachafoo wuññoon nañu wuññ mooy muri ak dindi doju natal afaaqi lëndëmu gox ya bil ilmi ci xam-xam wal xamali ak jëfe wala wifaaxi akuk dëppoo ne saxaaba yooyu day boole guñ boole woon xam-xam bu wér ak jëf ju sell ak doon benn ci seen biir yett yi ci lañu dindee woon mboolem lëndëm yi nga xam ne moo dajoon kaw suuf ñoo leeraloon àdduna ci kaw xam gu wér ak jëf jiw ak doon benn te yàlla tax ak rim kawtéefu tedd nga bihim ci ñoom min saadatin ci ay sang xoddaaxin ñu di way ñaw ñaw mooy yeewu ak muus xaasoo ñooñ làq nañu alxalaawata neex ga minal madaaxi ca mos ga ne dañoo doonoon sang yu tedd tedd yoo xam ne yàllaa leen teral ndax dañoo mos yàlla mu neex xamatuñoo bàyyi yàlla teral leen nag teg leen ca kaw li kaw alayhimoo yàlla na doole nekk ci ñoom riban ngërëm ulaaq yi loolu danaa taseeg bi ci moom man ka nga xam ne ixtawaa làq na siyaadatal itlaaqi cangug boyal ga maanaam cangu goo xam ne moo féete kaw cang yëpp yëpp boo ko defee nag siyaadatal atlaaqi bi fathil hamzati atlaaq nekk jamxu talaq muy cangug tuur ya maanaam cang goo xam ne moo raw ca tuur ya muhammadan turam mooy muhammad salla yàlla na dolli tedd nga àllahi ci moom albaaqi yi yàlla ki aji des wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay saxaabaam al atbaax yi ña di déelay asamaan maanaam ña kawe kawe bu mel ne ña nga ca asamaan ya mbaa seen kawe àgg na ci kaweek asamaan dafa tuddoon saxaaba yi ak seenu mbaax mu ñaanal leen yàlla doon leen ngërëm te moom sax yàlla laafaale ko ci biir ngërëm la ba mu taseeg sangam bi nga xam ne mooy sangub ñëpp ñëpp te te mooy Muhammad na ko yàlla dolli teraanga nag mook mbokkam yaag saxaabaam yooyu nga xam ne yàllaa leen yëkkati woon ba ñu kawee kawe ba mel ne